kulli man bi yatahallaqa najaa min kadari duniya wa fi yow ma najaa dellu ne ñaan naa saa borom mu nangul ma sa'altu rabbiya bil muxtaari summa bi in an laa yaruuma janaabi fi xadin naaru sàkku naa ci sunu borom ci darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne kii dafa nar a dem sawara bu mu ànd ak man bu mu jege sama mbir loolu sàkku naa ko ci sunu borom ba sunu borom may nanu ko kon lii nga sàkku lu yàlla mayee ba noppi la mu ne ko damaa bëgg sama mbir lu ci feeñ ci àdduna nga dencal ma la ca ëpp ba yomal xiyaamatal akbar mu ne ko mëndumbe teenu laa defal nii mu ne ko bisimillahi kon ne nga tànnul nu moonu gënal mu ne ko ma mëndumbe defal naa la mëndumbe xetax ak pepp lu ci gën mu ne ko pepp kay a gën xeteex ndax bu dee bu ñu dee taq ab xeteex di ko muñ pepp a tax mu ne ko defal naa la sa àdduna jëpp mel ni ab xetex woyof tooy yi fi yow waaye sa àllaaxira gépp di pepp tax na ba loo gis ci sëriñ ma ndumbe mbaa nga gis ko ci waa kër sëriñ ma ndumbe mu ngi mel ni xeteex ma bawoo ca pepp ma waaye la gën dëgg di pepp ma sëriñ Tuubaa nga ko fab dencal ko Cheikh ma ndumbe ak njobootam yowmal xiyaamatil akbar kon dal na am xel liggéey bii sëriñ ma Mandoumbe liggéey ci njaareem liggéey ko ci Touba liggéey ko ci Xabaan liggéey ko ci mbooleem réew mi mépp ngir di ko liggéeyal sëriñ Touba dal na am xel nag kere bi sëriñ Touba di dem ci géej gi di liggéeyali boroomam ànd ak noon yi ñuy yaakaar ne dañu koy sànki fekk déedéet moo bëgg na génn liggéeyali yàlla fa mu bëgg jëm mu bëgg a sori bindeef yi ci Sénégal ñi naa dama ne ak haa ba mën a nekk foo xam ne ña nga xam ne ñoo koy lëjal du bari te fa mu jëm sori na paas bi bari na waruwaay wi jafe na mu daal di ñaan boroomam mu ne ko danaa la tëgg ak say noon am nañu waruwaay wu la mën a yóbbu fa nga jëm te du jar ngay paas danaa la defal bi ngay jóge fii ak ba ngay dellu siwaat boo noyyee ma gërëm la boo waxee ma gërëm la boo ñaanee ma may la boo lëggee ma gërëm la mu daal di woo Cheikh Ibrahima Faati Mbakke maam Thierno Birahim daal di ko ne Thierno mu ne ko Mbakke mu ne ko Thierno yaa ngi ma ndumbe xemmem naa seenu ñaq na ngeen di lëggéey di dundal njaboot gi daldi ko ne nag dénk naa la njaboot gi Thierno maa ngi lëggéeyal yàlla diirub li mu nekk di lëggéeyal boroomam tabaaraka wa taala sëriñ ma ndumbe nga dem xabbaan digganteem ak got di toj tool ya di liggéey di bay di yónnee si maam na mu di ko fab di ko dundale njaboot gi njabootuk sëriñ Touba gi xaman nañ kan mooy Cheikh Mandoumbe seexi Serigne Touba yi daan nañu ko di seen bopp mu di leen dimbali sëñ Mandoumbe bëggutoon nagu mu moom bëggutoon fasu mu moom Serigne Mandoumbe mësta am compte banque lijjanti wutoon fu muy denc Serigne Mandoumbe lu mu mësaa am da koy fab jox ko yàlla te da koy jaarale nag ci Serigne Touba. ba sëriñ Touba woo na ko Serigne Mandoumbe mu ne ko Mbacke mu ne ko sa borom gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la. bind na ab leetar ca tukki bi ca géej ga ba ba ñuy wax Lambaréné ci quartier Almaona ba mu yónnee leetar ba seex Ibrahima Faati ñett da leen caa gërëm. daf ko ne Thierno na nga yëg ne gërëm naa Mouhamadul Makhtar Mandoumbe te na nga ko ko wax gërëm naa Ibrahima Fall te na nga ko ko wax. gërëm naa Cheikh Seydil Makhtar maam Cheikh Anta te nanga ko ko wax borom daaru Muxti daf leen a woo ñoom ñett ñu wuy si ko mu ne Ceerno ba mu ne mu ne Cheikh Seydil Makhtar bala ma wax li la sëriñ bi wax danga ma neexal Cheikh Seydil Makhtar ne ko neexal naa la aw nag ako fas mu ne ko nangul naa la ko ana ma ma ndumbe Cheikh Seydil Makhtar ma ndumbe ndax Seydil Makhtar la sëriñ Touba bind ca lettre ba da ko ne bala ma laa wax li la sëriñ tuubaa wax ci leetar bi danga maa neexal sëriñ ba ndumbe ne ko jox naa la fukki sàqi dugub neexale naa la ko mu ne ko loola moomoo ko dundam njaboot gee danga may neexal Serigne ba ndumbe ne ko jox naa la yetti naari góor mu ne ko yooyu day liggéey dundam njaboot gi moomoo ko Serigne ba ndumbe ne ko li ma sol ak li ci poos yi ak dàll yi ak mbaxana mi jox naa la ko téere bi ci sama loxo maam Thierno ne ko ma dumbe sant naa waaye loolu nga ma jox nag moom laa yendoo wutil leneen loo sol mu daal di wax maam seex Ibrahima Fall Babil Mouridina ne ko neexal ma mu ne ko fii ci àdduna dinaa di sikkar ngay dégg boo nekkee ci bàmmeel may sikkar ngay dégg bu yomal xiyaamee ma di la sikkaral borom daarul muuti ne ko kon nag seen yett neexal yi nangul naa leen ko waaye sëriñ bi nee na seen yaakaar nee na sunu yaakaar àdduna ak àllaaxira nee na yéen ñett làq ngeen ngërëmam làq ngeen ngërëmal rasulullahi làq ngeen yërëmal tabaraka wa taala seen borom ñetti kaddu yooyu maam Thierno Ibra Faati moo ko wax sëriñ ma numbe ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina ak maam seex Anta kaddu yooyu nga xam ne nag moom la joyal jëme ko ci ñoom kaddu yooyu tasaaroo ba tey jii bisub tey bii bis la boo xam ne bii ngërëm a ngi ci biir ndimbal a ngi ci biir pajog aajo ngi ci biir ñeenaa ki sol aw dallam ne maa ngi dem ci bis boo xam ne bii Serigne Touba daa gërëm borom bis ba te kat kii ci biir kër gi ñu di ko tudde soxna borom musóor na ngeen ci teey bu baax ndax Serigne Moussa Ka ngay way naa ndax jaan ju góor ak ju jigéen mattam wa manees na koo xàmmee ca luggukat ya jaan ji ci matt soo luggul mu faatu soxna moominatu mii ci biir kër gi bintu Cheikh Mouhamadoul Xabbaan mooy sëñ ma numbet arfan bi arfin mooy sëriñ Moodu Xabbaan arfan bi arfin mooy soxna Mariama bu sa jaaratu jaaratullah jërëjëf noo ngi waaj nag jëm poroxaan waaj leen dëkk bi sëriñ Touba jóge fii ba dem poroxaan lëggéeyal fa boromam tabaaraka wa taala diggante ba yàggut diiru bi Serigne Touba nekk poroxaan ak bi mu jógee poroxaan yetti at rek la soxna jaara lëggéey fa lëggéey boo xam ne jigéen mosu koo lëggéey ci kër mbakke ba wala ku tedd ki feeñe foofu la fere am soow bàyyi koo fa dikki fii ci xuru mbàkke foofu la sëriñ Abiballaahi ganee jamono. te doomi xaadim rasool ñu ngi ci xuru Mbàkke ku bokkut ak Abiballaa seexal xaadim rañaane fi dem poroxaan poroxaan liggéey ba yàggut poroxaan googee nag fa la seex Seydil Maxtaar maam seex Anta feeñe poroxaan googee Ibrahima Fatim Mbàkke ba borom daarul muuti feeñe borom daarul muuti nga feeñ poroxaan wax nañ ne guddi alxames la asamaan sedd di gaaw asamaan sedd ajjuma maam seex Ibrahima Fatim Cerno alxames la feeñ ci àdduna alxemes lañ ko feralam soow alxames la dal alxuraan alxames la làq ngërëmal sëriñ Touba alxames la sañ ci daarul muuti alxemes la tawat alxames la génn àdduna Cheikh Ibrahima Fatim Mbacké borom daaru muuti moomu poroxaan googu la feeñe ba mu feeñee poroxaan sox ya takk ca guddi ñu def ko fa ci ak leget yanoo ko fa yóbbu ko ba ñu ko yóbboo fa nga xam ne fa la ko sàkkaleew tur werante wi daa bari foofu laa ci yem waaye nag ba ñu dëppee nag foofee bay ñëw ba tolloog dëkk ba ñu ciisee la maam Cheikh Anta feeñ ñoom ñaar ñëpp poroxaan la ñu feeñe looloo tax yëngu poroxaan rëy borom daaru yëngu ca biir Cheikh Seydil Maxtaar di yëngu ca biir xaadim rasul dara li lépp boole ko yor maam soxna jaara taxaw ci bunta poroxaan bu ñu nee poroxaan tey la ñëpp jógandoo taxaw maam jaaral bu so taxaw yoon wu nekk mu taxaw fa moom soxna jaara di def di faj aajo yi ña nga xam ne ñuy ñooy ñëw malaayka yi di ko wañal noo xati ñi mu di ko fajalu ni toll ci seeni aajo doom yi ëmbe ci biiri yaay yi te ganee guñu jamono ak leeri doom yi nekk ci ndigg góor ñi te demaguñu ci biiri jigéen ñi soxna Mariama Bousso di ko lijjanti ci poroxaan bis baa ngoonguy ñëw waaj leen nu dem poroxaan wasalaamualeykum wa rahmatullah okay nan la ñu war a demee poroxaan tahsimuhu bi sunnati su ngeen ko defee yaquduna lil jannati nan leen demee poroxaan sunna nan leen sellal waaj mi te di lewal di lewal li nu yóbbu poroxaan te moytandiku po te moytandikuy caaxaan tey sol lu jot te jigéen ñi muuru te woto yi daw ndànk teñ bañ di yokk paas te yóbbu dund bu lew te te te te moytu yàq foofe ca poroxaan bu leen fa reyu mbelentaan bu leen fa rey janax bu leen fa rey jaar bu leen fa rey jaan na ngeen di rey lu ngeen di jariñoo lu ngeen dul jariñoo bu leen ko rey poroxaan roo yooyu ngeen di gis ca poroxaan ñu di leen niru ruuy bayi ma du ñu ruuy bayi ma ay jinne lañu ak ay malaayka ñooy dikk poroxaan di màggal si bu leen leen gis mukk jéem leen a rey bul rey picc mukk muy naaw déedéet benn muy malaayka mbaa muy jinne bul rey borom ñeenti tànk la tàmbalee ci mbëtt ba ci mbot bu ko rey mukk mën naa doon malaayka mën naa doon jinne bul yàq dara ci poroxaan boo mën na bañ a salteel poroxaan sax bu ko salteel waaye boo ko dee salteel na ko wàqi suul ko ba bu ko kenn joggi na ngeen wormaal suuf sax te wormaal jumaa ja te wormaal lekk ya tey wàqi lu des di ko tuur waaye bu leen ko sotti fu ñuy joggi te bañ di wax lu bon te bañ di def lu bon te siyaare sëriñ ba te yàlla tax te war barab ba fas fa la ngeen bëgg te te te te moytu yàq fa poroxaan te xool seen digganteeg seen borom fab maam jaara dugal fi lanu bëgg ci sëriñ Touba wut ko ci soxna jaara kon nu amee ko ni nu ko bëggee. koddaay mi nga xam ne moom la ñuy yóbbu bu leen fa bi sagar mukk di ko yor soxna jaara bëggut kenn ku nekk boo de yóbbu la gën ci sa gaal na nga ko yóbbu boo demee na nga ko joxee fa ñu koy joxee ñii taxawaalu yu wëndeelu kenn ku ne naa jox ma kodda maam jaare déedéet yóbbu leen ko ca barab ba ñu def ko ca oto yi yóbbu ko ca daara ya jox ko waa daara ya ak di ko woddee ma jaaratullahi yu ndaw ya ñu di leen ko wodde koddaay leen yëmut ci séer dong ku am ab lam baax na ku am takaay baax na ku amu dàll baax na ku amu ñam baax na lu waaye am lu dul yàqu rek baax na waajal te waajal dund bi te waajal paas yi te waajal lekk gi te bañ a lekk lu leen di lor te nun ñëpp nu wëlbati ko jublu poroxaan waaj ko jot na